daara ñepp mo la sé ñew fofu lu rek la ñaan ba nga ñew fofu sa seen dëkk ñu xam na ma kaare li doon liggé daara tay lay feeñ lu rek la ñaan fu mu toll mom la ñaan te bés bu bu yalla bu mu la ump yalla na la ko yalla defal baara sall nak yow ñing lay ñaanal di la sant njulli moom kontaan nan tay mom añ bin añ musuñu ko añ musuñu ko añ ndulli yi wiira tay ñi ngi fecc ndax ceebu ganaar yu neex yi ak boisson yu neex yi ma sha allah yalla na la yalla fay mboolem ñi ma ànd ak sa waa montagne gii nag fu ma jóg guddeeg bëccëg bu ma ne ma kayree woote kenn du des ñii ñëpp toog maa leen andi keroog ba may jaay carte yi carte bu ma andi jënd nañ ko fii ba ngap tey damaa guddee waaye kon ma wooxi waa ngap waa ngap kenn desut keroog ñëpp a jënd carte léegi nag yoon du yem si wenn bu ëllëg yow beneen yoonee waa ngap danañ ñëw bu ñëwee danañ xam ne ma kayre liggéey na daara te nit ñi jàppale nañ ma kayre daal yow ñu ngi lay wëcc ak yàlla mu fay la yàlla mi dara tawut yàlla na la yàlla fay si barke maam Babacar yaag Baara Sall. munoon na wax bokkuma fi way bi mu fi ñewé ba léegi. def def war a def ordonnance yi fu ko jox ordonnance mu dox ko ku febar mu jox dañ koy ñaanal rek yalla na yalla na gudd fa lim lim bëgg moom mo xam yalla na ko yalla may. moom da dara du la metti ndax mom nit ku nit ku baax la xam xam na teraan xam na nit ñi xam na jollof maa ngi di nuyu di leen sant. yu garaaw yu bari ñu ngi fi. ñu ngi si ñu ñu ngi siy jàppale yàlla baax na yëpp réussir na mais nag gërëm tey dama koy gërëmee Baara Sall ndax tey vraiment kontaan nañ ndax xam nga lu toll juróom fukki taalibe nga xëy rek nga accepté ñu ak ñun nu ñu mel ak suñu coow ak suñu yëpp mu jël ñu yóbbu ñu këram toggal ñu ceeb booleel ñoo waa këram ñu sonn ñu sonn mu togg ba pare mu jël otoom indi ñu. defal ñu ndox mu sedd defal ñu lepp ñoo ngi ñaan nag ndox momu ñu naan mu sedd gu yal nak sa lepp sedd yalla na sa lepp leer ndax contane nañ torop manon nga bañ ndax ñu bare nga fi nak responsable bu ne mu ngi fi ku ne fëgg nañ ko ku ne da nga bañ mais yow nga respecté ko nga nangul ñuko mais li nga def tamit sa bop nga ko defal ndax social la social lo ci def yalla da la koy fay dang koy gis ci ni mba ci nay te ñoo ngi ñaan tamit ñi nekk ci asos bi ñu gën gor góorgóorlu yalla jappalé ñu ñu gën gor ci liñ nekkone jënd kart yi yëpp am na ci solo mais ñuy gën a góorgóorlu lii ñuy programme muy ñëw ñu gën si jàpp ku nekk koñ ba nga nekk nga wax ña fa nekk ñu génn ñu jàpp si ndax bëgg nañ def conférence ci weeru koor bi te war nañ dem fële fële bu Louga da war fa def ndogu loolu lépp war nañ ko def te ñoo ngi nii suñu kees ñun ñoo ñooy yëkkati suñu kees dañoo bëgg ñëpp jàpp si ñu góorgóorlu képp ku si man la nga mën nga def ko te am na sax cas bu fi ñëw tey cas de 300000 la. dafa wara opérer opéré ñu ko wara a ni ñu war ko opérer te ñoon ñoko wara taxawat comme niñ ko daan taxawé ma ngi ñaan yeen ñepp ngeen japp ci ban yóbbu ko ba momin it loolu muy faju ji yalla dimbal ko ci ba mu ngeen balma ma nak dara jëlof ndax euh, li bar sal def euh, sama kilifa la musuma jaar ci turam don la kay wax du deug mais defuluko kenn bopam lako defal te euh, Makayre donc góor góorgóorlu man fi may njëkk a waxe fàtte naa sax ne tey fa ma jóge Makeere am na yëg-yëg ci doomu aadama Makeere maa ngi moom ñu ngi bokkoon nekk rajo Ferlo FM foofa lañ nekkoon man ak moom ak saf neex Makeere am na sama bés Makeere nelawul Lescor nelawul te Jolof gépp li may wax nii Jolof gépp Euh, bàyyi nañ ci xel te booba dégg nañ ñu ne tëj nañ ko 500000 ak nag te boobu maa ngi fii Kër Lesko donc Makeer yàgg naa def lu baax Makeer yal na la yàlla lafal cat yal na la yàlla musal ci seytaane euh, baara loo man ren yàlla nga ko mën déwén yéen it yéen ñi nga xam ne yéen a nekk association bi donc da ngeen a delloo euh, naar bi cëram waaw ndax bu la nit jaayee poon bu pon mi neexee doon xumay ni force nga ñëw na ko gàcce ngalaam lu dëgg kon yéen ay gor ngeen ay gor ñoo séq lii nga xamante ni mooy association kon yal na leen yàlla jàppale ngeen gën a te seen biir ngeen bañ seytaane dugg seen biir aussi ndax fi ngeen commencé début bi neex na mais bu ngeen nee ba ci biir loolu de waxi yàlla la faaw saytaane rax ndax bu amee xaalis mbaa mu am leneen rek bëtëb kañaan day daal dugg yàlla na yàlla musal ci loolu kontaan naa jërëjëf yàlla na yàlla fay. mais aussi njulli yi nga xam ne yàlla def na chaque mois d'avril dañuy def li nga xam moom mooy wàllu social maanaam dimbale ñi nga xam ne yelloo nañ dimbal moom moo tax ñu programmé tey euh, taalibe yi nga xam ne yàlla def na juróom fukki taalibe euh, ñu xarafal leen ñu ne taalibe yooyu noonu yëpp. ak xale yooyu tey dañuy def defal len berndeel len mbir mi biñ ko commencé euh, si la ko benn responsable bo xamné ne si daara la nek nek kilifa gu mag ñu koy wax euh, Bara Sall nek responsable politique nek conseiller municipal yoré fi tout ce qui est développement au niveau du développement aussi, si yëngatu mu ñu né ñu né xalé yooyu ngeen di berndeel man Bara Sall bàyyi len lepp luy walu togg ak ndox ma jor ko Nam ko waxé le la def ne nañ leen defal li nga xamné mom moy ganar tay yi nañ nañ boisson dara manqué ñaan dem. mu lu ñun aussi tam ñun duñ ko faté jamais boisson bi aussi kiko joxé moy Ousseynou sax fa rek mu la ah, monsieur Sall ñu euh, soutenir pour ñu wara bégal ñi nga xamné ñom ñoo nek talibé vraiment défal leen li nga xamné dal daal moy bégal leen biñu ci waxtané mom itam mu jënd bu assom né li vraiment man participer naa ko si bu ma nak yéegoon nag def plus mais gannaaw yéeguma ko woon aussi tam man li la ci mëna def euh sank awagay mu ko wax parce que mbiri ordonnance mom moko yor ki ordonnance bi diko wara fibrom la yoré def nañ ko traitement yi ba fi ni opération mo ci dess nous avons louga numéro docteur baangi ni dañ qui ko euh liñ la mëna défal moy 300000 lañ ko mëna pour ñu défal opération bimu kié hôpital bu Bouddara, hôpital élisabeth diouf né ñun ci walu social nous ci def une participation légui xam fait 100 000, 100000 ñu dem défal opération bi avons ni association bi dina fexé nu mu régler 100000 ñu def le tout opérer ko moment bi may wax ak yéen moom nekkul fi mais doomam si boppam mu ngi fii si biir saal bi ak ñun. nga xool ne kooku tey jii nii nii nii nii nii nii toog feebar ba xamatu lan lay def ba mu jóg depuis 16 heures doomam a ngi toog di ñuy xaar waa tey kooku ku buñ ko fajalee yaayam nu muy def kontaan ñun de horizon solidarité di Jolof lii mooy suñu liggéey. duñ mës a toog si rajo wala si tele ne kaay la ñu dimbalee diw diw nii la tudd diw nii la tudd diw nii la tudd waaye ku ñu indil ay kayit yu leer ay preuve yu leer nañ amuñu ay millions mais nag danañ dugg génn waxtaan ak kilifa yi nekk dugg si koñ yi koñ yi képp koo xam ne parce que tey da ngay sol 400 membres lañ léegi les 400 membres ku nekk bu defee mille francs mille francs 1000 francs ñaata lag du 400000 kon ñun war nañoo mën a def plus lii rek lañuy liggéeyee.

man mii mën naa faa dem dangay ngay gis chauffeur boo xam ne day dawal di indil famille bi yàlla def mu am ndog ñu jàpp ko tëj ko fa keneen ak keneen noonu keneen ak keneen noonu. kon ñun fofu rek lañ basé woo euh, di leen di ñaanal di leen di sant di gërëm aussi euh, euh, ñi nga xamné ñom ñoo surtout jàppale association ba fi mu yegg si melni wa medisol international docteur Rose Wardini jité ko chaque année moom mo ñu défal consultation gratuite daw def nañ ko 200 handicapé lañ consulter jox leen dundu lool yépp ci docteur Rose Wardini la ren encore muy jongalaan ñu lu tolloog juroom fukki xalé té amna yenen yu ñëwaat amna yenen yu ñëwaat amna yenen yeneen mbootaay yoo jël nañ décision pour jappalé ñu kon ñu ngi leen di sant di leen di gërëm si côté boobu euh lolu la ci doon yëkëti en tant que président euh, di sant bu baax baax euh, Bara Sall mi nga xam tay association bi nommé nañ ko li nga xam mom mo nekk président d'honneur bu Horizon Solidarité di Jolof. Yalla ngeen fi yàgg te euh ma ngi dalé ci nuyoo bi ma ngi né nuyoo le président. maa ngi ciy maa ngi ciy maa ngi ciy tofal tous les membres des tous tous les membres des ñu ngi leen di ñu ngi leen wax na leen euh, lii kat lu baax la ndax euh, mën kaanu lay kaanu laaw la yàlla nee na ku ko nekkal mu nekkal la te yéen a ngi nekkal ci ci ci ci li yàlla wax kon bu leen bu leen découragé mm, euh, bu leen yoxi yoxi góorgóorlu leen ndax nit nit kenn lekk ko kenn naanu ko nit njëriñ dong tax ñu koy ñu koy wut. nit fekkee ne amuloo njariñ nit doomu aadama bay boobu dee léegi noppalu nit war war na mën a dund. war na mën a dund ci ci kaw njëriñu nit ñi di di di di dox ci di jox ci njëriñu nit ñi muy génn àdduna kon bu baa yàlla dana ko fay lam bëgg lam lam lam bëgg li daal mën wax wax di yàlla man maa ngi maa ngi koy maa ngi ñaanal maa ngi ñaanal dijee ak képp koo xam ni bokk na si bi di leen ñaanal gudd fan te li ngeen ci def yàlla mu nekk njistal yàlla ko yàlla gis ndax lépp lu waay def fekkee njistal la doo ci am dara bu dee nag euh, lu yàlla tax mooy yàlla nanga moo tax ngeen def ala kulli alin yàlla dana la fay bu leen yox yox lii nag dafa metti dafa métti bu leen découragé de dafa métti de jaamu yàlla daa métti de lii jaamu yàlla la waaw de lu lekk dañ ko dégg nag ñii dañoo sopp ñi dañoo def lii ñii xaw ma amul dara pare def lii mais nag encourage rek yoonu baax dafa diis yoonu baax dafa diis xam nga xam nga yoon wu yomb yoonu yoon woo xam ne nii moom loolu neex def amoo kii loolu moo yomb waaye loolu amut ak mujj li am mujj daal mooy lii yoon yoonu baax maa ngi leen di gërëm maa leen sant maa ñaanal lépp lu ngeen sumb rek ci lu baax yàlla leen ko yàlla dimbalee jotal leen ko képp ku leen bëgg kal yàlla la ko yàlla teg ci yoon woo ba ngeen jàll ci siraatal mustaqim baax na maa ngi gërëm ñëpp wasalaam. muy nit ki nga xam ne nit ku baax parce que mun naa wax ne Makayre Ndiaye comme ni mu ko waxee sànq bon du rajo moo ñu boole maag moom dafa fekkoon maag moo ñoo bokk de sixième à mu nekk nit bi nga xam nit ku déggu nit bi nga xam man dama ko doon wax sax nit ki nga xam ne lu mu yëkkati da koy daane lépp li nga xam ne song na ko rek da ciy dem koo bout bon. man nak mun naa mun naa mun naa mun naa ñàkk wax li nga xam ne lu bëri daal su ma sañoon tuuti rek laa si wax si li nga xam ne def na ko fii mooy horizon bi nga xam ne def na ko au niveau départemental au niveau Jolof li nga xam ne franchement parlant yombul parce que nga nekk fii nga nekk jeune un jeune engagé ngay def si solidarité même période bi nga xam ne nekku fi wallaahi li azim man am ñi nga xam dañ ma doon woo ñu ne ma sa copain de manqué na fekk quoi parce que am na cas yu bëri yi nga xam ne moom rek moo ko doon résoudre moom rek moo si doon dox mu lijeuntu ko ba tellement man damay toog rek mu jékki-jékki wo ma telephone mu ne ma Mamadou ma ne ah, mu ne ma man de dama am cartel su ma sañoon ko def ci temps man man sa yoo ma woo rek je suis disponible quoi pour cela rek ma féliciter ko mané ko bonne continuation bu lolu jàllee tam ma remercier son excellence Bara Sall mu nek nit bi nga xamné grand bu bax la parce que maamu yagat yag nañu fekkante ci ay bërëb yi nga xam man bu jëlé discours sax man dama koy déglu parce que c'est un homme digne un homme de parole bu waxé da nga am ne ki c'est un homme engagé lu mu wax ni daf ko gëm kon nag ñi woo waa Jolof bépp woo waa Daara parce que Dj Mag lu muy def nii nii nii nii du waa Daara ko moom waa Jolof ko moom Sénégal ñoo ko moom pourquoi par Afrique ko moom. parce que li nga xam ne c'est pour le développement comment dirais ñëpp loolu kenn ku ne da si war a jàpp parce que ñu ñoo ko moom ñi jàppale ko ba li nga xam ne mooy suñu mbébét ñu am ko franchement parler di jëm ak je vous remercie quoi si loolu. asalaamaaleykum euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax ku si nekk si turam ak santam. di leen euh, jaajëfal bu baax a baax initiative vraiment bu noble bi ngeen am parce que social dafa nek lu yaatu surtout buñ nekké ci réew mo xamné ne dañu nek réew mo xamné bien vrai que ne suñu république bu laïque la mais 99% yi wala 95% yi ay musulmans lañ ku wax réew mo xamné à dominante jullit la japp na né social mom mon wara a jiitu wara nek au début et à la fin de toutes nos actions donc euh, ta jamono nakhrina conjoncture bi nga xam mo fi nek actuellement ni. franchement ak jafé, jafé yi nit ñi di jonkonteeg su ngeen yëkëté lu melni vraiment nit ñi non seulement war na leen war na leen féliciter war na leen encourager mais aussi war na leen jappalé war na leen jappalé donc ce n'est pour rien que président de la république euh, Macky Sall so gisé sax ren li def daf année bi année sociale la bourse familiale yi ñuy séddale vous yeen constaté ngeen ko jamono mo démé noonu tekk-tekk yi bari ba nga xam il faut ñu gunge il faut ñu gunge néew yu doole donc ma xamné tay dal tey daal man dama lol lol lol ci initiative bi comme niko ko dijë mag waxee aussi ñun reban revendiqué wuñ dara si c'est pas euh, du fi lañuy wouté dara wala lañuy sento lenen comme ni ko wax dafa nek lo xamné luñ def de manière spontanée comme niko ko Dija Mag waxé dama tok ni connecté ci réseaux sociaux ma gis muy publier kii bi vraiment ma apprécier ko lol te mu bett ma aussi parce que xaluma ko won fi dara bi ma ko gisee ma ma ma ma ma sama ben commentaire na vraiment Dija Mag ma ngi lay encourager bu baax a baax li ngeen def initiative bu rafet la fofu rek la yem après mu ma.

mais yàlla mooy cërale rek yàlla mënoon a def noo xam ne tey suñuy doom ñoo nekk si seen place nekk Dakar wala nekk si yenn yenn daara di fa dar di fa dund lu méttee méttee métti yàlla xam na ne loolu rek laa xalaat dama xalaat ne am naa doom te comme taalibe ñoo bokk génération loolu situation boobu mën na leen dal loolu kese moo sous-tendre suma suma action loolu rek moo tax j'ai réagi automatiquement à la place des taalibe xool tuma taalibe suma doom laa xalaat laa xool moo moo tax ma jëfee noonu ma jëfee

duñ xool lu baax la ngay def mais dañ naan ka koy def la danaan eh Dj Mag de moo jiite affaire boobu bon Dj Mag de day est na politique déggoon na x wala y comme x ànduma ak moom donc damay jàpp ne su ma ko doolelee sax dooleelu ma ko x laay doole parce que moo nekk si ginnaaw donc il faut que nit ñi transcender loolu dépasser loolu politique nekkul ne dañuy politique 24 heures sur 24 politique benn diir la su jotee ku nekk nga dem def li ngay def soo paree nga jublu si développement parce que am politique bu bari bu dëkk bu dëkkee deful réew.

man nañ def lu ëpp plus que ça li lu dara lu dara c'est des détails donc na si nit ñi jàpp encore une fois aussi may may content trop ci de manière spontanée ni ngeen jékki-jékkee tamit def ma seen président d'honneur loolu aussi cër la bu rëy rëy boo xam ne dama koy bégee di ci content lool lool lool lool lool lool parce que aussi xam naa da ngeen réagir ak comme seen xol ak seen yéene quoi mais comme li ma leen waxee dama ko defoo rek dama manière spontanée li ma ci def yépp dama ko def ngir yàlla et puis entre frères ngeen def action yu noble ma jàppale len te ëllëg tamit su ma déggate ngeen def leneen aussi lu mu ci mën japp dina ci japp sumay relation sumay contact par ci par là yéen ngi wax déjà ndogu ci ci ci ci ramadan bi euh ñi nga xam ne ñooy organiser marmite du cœur ah marmite du cœur dañ am seeni partenaire avec la première dame Mariam Faye Sall ak ay Orange etc. cetera et cetera ñooñu ñoo leen di finance dañu wër Sénégal barki dem rek ki kay def suma xarit la parce que daf ko njëkk def daara vous vous rappelez, mas naa ko def fi benn année yàlla ay 56 ans ren daf ma woo na ma boy, ren programme ren il faut ngeen bokk ci. donc man xalaatuma organiser ko parce que peut-être maa ngi doon xalaat ma ne ko dinaa ci réfléchir mais ce sera une occasion boo xam ne peut-être xaw ma li ngeen def ay Louga moom si jaaxal mais je sais qu'ils sont prêts à venir à Dara te su ma leen confirmer danañ ñëw. pourquoi pas maa ngi doon xalaat ay conseil communal de la jeunesse ñiy def ay ndogu chaque année bon de concert avec vous ak ñeneen ñeneen on verra.

mettez le paquet de vos activités fii à Dara, ba pare après lu si bëri lu si des leneen ngay kii de toutes les façons daal c'est un honneur vraiment je suis très content donc maa ngi leen ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na leen yàlla gën a jàppale et puis vraiment mu gën a jëm ca kanam quoi donc je vous remercie DJ Mag. bi ñu nekkee Ferlo di def émission bi muy Doudou Thiane nekk Daara FM nekk aussi ci Senevision point com ak yeneen site nekk correspondant. moog euh, ki nga xam ne moom mooy Mamadou Mbaye ñu koy wax Lusko sant yàlla bu baax amut lu ñu deful ci association bi gis nga liggéey bii may def bu ma demee ba gën koo ñemee ñaar ñi bokk nañu ci duudu day toog bi fii ñi nga xam ne mooy euh, waa euh, moom mooy benn mbootaay boo xam les femmes juristes biñ fi ñëwee yàlla dafa def man ak dudu caan ñun ñoo boobu dañoo ñëwoon pour seet si benn handicapé fii boo xam dañ ko violé woon maag duudu ñun ñoo def tracé bi wax lañ handicapé ñu war a seeti yëpp duudu ñëw ne man nañ dem si diw nañ dem si diw nañ dem si diw nañ dem si diw ñu déplacé wu dem si handicapé yooyu noonu ñu jàppale handicapé bi nga ne moo amoon jafe-jafe heure boo ne social la duudu day jël téléphone am ma ne ma lii ak lii ak ba ni ma quitté daara daf may woo ma moom frère lenn rek laa bëgg booy ñëw daara ngir yàlla woo ma social bi nga fi doon def dafa am lu bëri lu fi manqué ma bëgg nga ñëw ñu ànd si liggéey ko dimbale jolof-jolof yi. am na benn cas boo xam ne dama gis si net bi mu publier ko ba ay ñoom Idi Samb ak ñu bëri réagir si jàppale ko ak ñeneen kilifa yoo xam ne moom dana ko cité bi mu ko kiyee dama ne ah duudu de vraiment. mission bi mu ngi koy continuer parce que euh tay nga nek un homme de média ngay tok yakar xibar bo joxe mais aussi tam, ay nit lañu être humain lañu dañuy am yermandé dañuy am ño xamné dañuy nek ci jafé jafé mais xam-xam bi la yalla may sa loxo set lol ba lo bind ku nekk yàkkamti koo lire deglu ko wala lo filmer nit ñi ne moma vraiment ñu tam day bax ñu participer ci askan wi jàppale len baña joxé des informations yo xamné dina détruire diganté baña joxé des informations xamné dina yëkkati nit c'est vrai yooyu yëpp dafa bax mais li upp solo moy que aussi tam nga bàyyi sa xel ne man à part li ni ma nek sama métier warna mëna def leneen lo xamné warna mëna naa sama askan pour ëlëk sama bop lay liggéeyal kon moom itam bu ñëwé fi monsieur Thian tay euh, ñu jëlone def euh, ki nga mom moy Bara Sall suñu paré ci li nga xamné njuli yi doon génn moy 50 njuli mu jappalé ñu ci walu berndel togal ñu añ 50 talibé yépp mu jox leen añ yëkkati ndox jox leen le maire aussi tam muy Ousseynou mom tam yëkkati boisson joxé tey jii nii moom moo waraloon suñu li ñuy defaale suñu assemblée générale yow tam nga teew fi du rafet ma tok wax ba xaabaabal ba dugg fépp bàyyi leen ci li nga xamné ne yéen a ko doon def muy yow ak Lusco tey lii nii yëpp muy def amul dara loo xam ne tey yëkkati nañ ko jox leen ne leen ñëw leen ku nekk si ñoom la mun day ñëw ne danañ ñëw ànd see yéen lii ak lii ak lii kon loolu aussi tam dama si gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déplacé wu ñëw jógee koñ ba koñ monsieur Sall dama lay expliquer benn affaire am na koo xam ne mu ngi si salle bi dafa am sëtam sët bi def yaayam bi muy am xale boobu noonu dafa gaañu bàyyi xale bi. moom maamam maami xale boobu noonu yàlla def moom itam ñu teg ci quelque mu gaañu maire bi moom kese mu nekk ci kër gi bëgg na mais mënalul xale bi yenn yi mu ne ma xale bi wuutal ma ku ko téye ma ne ko maire joxe sa set ñàkk pexe la de waaye xam naa ne yaa ngi koy def waaye di yomb de xam la ñuy def bàyyi ma defal la appel bi ma defee appel au niveau de la rajo ñu soutenir ma. jàppale ma indi ay meew indi lepp lo xamne xalé dina ko yittewoo ñu dem yebul ko xalé bi tay ji ni ni ni mom moom jabari di jëm ak la koy la koy tuddee xalé bi mu ngi ci 2 ans et pourtant ñom jàppoon nañ ni ki dund sax du ko def mais tay ñan ñoko def muy association bi tay ñoko def ñun toujours duñuy bëgg tok di wax ni diw ak diw ak diw ak diw mais ku ñëw vérifier da nga gis sa bop xamné ñun. du politique la ñuy def moo tax ñuy def ñun social si la ñuy yëngatu di def lu ñuy def en tout cas vraiment ñu ngi sant ñëpp membre yëpp di wax ne daal association bi tàllal nañ loxo ñëpp ah. ku si mun a ñëw ñëwal. maa ngi jégalu ci yéex a ñëw bi quoi parce que Makeere waxoon na ma ko depuis ci ngoon donc euh, vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci teewaay bi fii. boo di wax ni action yu mel nii moom ku ma ci woo man dama ci ñëw parce que lii mbirum social la. donc euh, vraiment lu bax la di remercier aussi ñi koy jappalé ci ci liggéey bi mu def parce que Makaere quand même c'est un exemple ci dëkk bi vraiment référence la fille parce que lini ni moko ko initié ci dëkk bi. donc euh, wax na ko sank bari na fay action yo xamné mom def na ko fii ci dëkk bi yo xamné après amna sax ay réussite yo xamné ñun dafa upp su ndort je prends l'exemple de Adama kaw Adama euh, vraiment lim ci def tay ba ay autorité jogé fune ay ministre ñëw japp ci ay ONG ñëw japp ci lolé bu amé c'est grâce à Makaire ak yeneen action yo xam def na ko fii. donc vraiment encore une fois Makaere ñu lay remercier di wax né donc li lu bax la di ko ko continuer di ko def euh, je crois que donc euh, di remercier aussi Bara comme par une manifestation bi tay aussi. donc Bara aussi c'est un homme que je connais très bien pour l'avoir donc euh, fréquenté pour l'avoir connu dans le mouvement associatif muy nit ko xamné aussi boko xamul da ngay japp né ko difficile la alors qu'en réalité Ken gënu ko ku il est très social donc vraiment encore une fois nous les ñu lay ñu lay féliciter aussi ci initiative bi nga jël Nous sommes le parrain de cette manifestation. parce que les meilleur toujours dëkk bi il faudrait que nous aussi des fois bàyyi politique di liggéey ci développement di liggéey ci social. parce que politique du du vie la politique c'est pas une vie n'est-ce pas Et lignes de def lii moo baax lii ay action la yoo xam ne kenn donc moom bu accepter nekk le parrain de cette manifestation je crois que c'est le lieu de le féliciter encore une fois parce que li nga wax nii dama koy confirmer euh, man def naa fi fi ay actions yoo il s'est montré volontaire pour soutenir ces ces victimes là ma gis ko mu koy def donc euh, su toogee fii aussi il faut me confirmer loolu que ne c'est pas la première fois muy def lu mel quoi donc y a fi teew aussi vraiment je les leen di féliciter di leen remercier di leen encourager man lu mel nii ku ma ci woo dama ciy bu politique du ci parce que moi je ne fais pas de la politique mais lu mel développement la lu mel social là, man commission dama si ñëw parce que quand même lu gëm la man dama gëm ni, nit ñi il faudrait il faudrait que des fois ñi gestu ñi nga xamni ñoo nekk suñu ginaaw su leen mëna jappalé jappalé leen suñ doole suñ ko mënut conseiller leen te je crois que makere yow dama la yàgg naa la ko wax bima la fekkee Dakar wax naa la ko néna la Dakar gi nga nek ni ñun daara on a on a on a été victime hein de ton de ton départ parce que quand même bi nga nekkee daara doon nga fi liggéey lu am solo émission yi nga fi doon def dafa dafa manqué waa daara parce que lu bari yaa ko doon wane ba nga ne ma sax non man dama lay ñaan li ma doon def nga def man la man li nga doon def man mënu ko xanaa damay jéemee mënu ko donc vraiment Makaré aussi am nga mérite trop am nga mérite quoi donc vraiment di remercier aussi Lesco ci couverture bi donc vraiment daal lii moom lu baax la di leen encourager ah association bi di ko encourager donc ngeen gën a góorgóorlu ci action yu mel nii lii lu baax la ah parce que quand même di xalaat des fois ñi xam ne dañoo les couches les plus défavorisées le fait que nga leen di xalaat rek déjà loolu rek dafa dafa baax parce que am na ñoo xam tey am nañ alal mais toppatoo ñi nga xam ne ñu ngi ci suuf mais déjà yéen vous avez une pensée à ces gens là ah hein? donc vraiment yéen aussi vous avez du mérite quoi Isma aussi c'est un ami quand même ñi fi nekk ñëpp samay waay quoi donc maa ngi leen di encourager ah ñoom Amadou boy Amadou donc vraiment di leen encourager encore une fois di leen remercier ci lii. mais aussi di gërëm euh, label bi nga xam ne mom moo ñu accompagner defal ñu li nga xamné tay moy suñu visibilité mu nekk des jeunes yo xamné ay jollof jollof lañu yoré sen matériel bop ñom itam di accompagner guddeeg bëccëg moy Dunia production euh, le directeur di euh, ki nga xamné mom mo moo nekk Mamadou mbay ñu gën ko xam ci Losco ñu ngi koy sante di koy gërëm di gërëm ñëpp di ñaan vraiment nit ñi ñu bayiléen xel bu baaxa baax ndax li leen yitel moy jollof la nit ñi di jéggaani feneen amna na ba pare ñu ngi leen di sante di leen di gërëm jërëjëf Mamadou mbay